xam nga ki nga wax ni damay commencer ci sama bopp comme ma fi teew kii nga wax ni dafa nekk toujours ci mouvement présidentiel euh, il faut que tamit taarix nga xam ko mais sori trop ci taarix bi manaam ci histoire am jaru ko li am maanaam mooy waaw moom lu ko jëlee lu tax jàppalewul candidat bi nga xam ni moom la président Macky Sall tànn parce que man président Macky Sall dama tàggook moom te bi may tàggoog moom dama ko bind lettre de démission maanaam dama bind lettre président république ñu ko àndatuma ak yow. ci sa parti bind ko ba ko sax en en audio ñëpp. voilà bind àndatuma yow ci sa parti àndatuma yow ci sa ci sa cabinet liggéeyatuma ak yow. pourquoi parce que man dama ñëwoon euh, bokk ci ñi nga xam ne nii seen taxawaay ci cabinet mooy du ma wax jàngal yiw mais xiir yiw. Hmm. xiir ki ñu àndal ci yiw. d'accord waaw euh, nga doxal leneen. kon nag man delloo naa ne li ma joxoon. léegi damay demal sama bopp. Hmm. ci kaw loolu ci laa dajeeg Mahammed Boun Abdallah Dionne Mahammed Boun Abdallah Dionne soo ko attee ci ni mon patron euh, euh d'aujourd'hui mon patron d'hier mon patron de toujours euh, moom itam defuloo taarixam ndax am na ay kàddu yu mu jibal mooy seqatuma ak dara président Macky Sall candidat la te loolu depuis le 21 septembre 2023 bi mu defee sa déclaration engagé wu comme candidat. léegi bu ñëwee nag ci rupture bi ni ko Albert waxee euh, Mahammed Boun Abdallah Dionne candidat de rupture la mais rupture dafa am rupture ak rupture boo ñëwee ci am réew nga bëgg ko soppi il faut que nga xar nga am nga xam xar kanamu réew mi réew mi ban xar kanam la am ngay mag di ndaw nga tudd Diomaye nga tudd Amadou Ba nga tudd Mahammed Boun Abdallah Dionne nga tudd Albert nga tudd Birama wala nga tudd Abdoul Aziz dafa am lu la war mooy lan mooy xar kanamu li ma fi fekk su ma ko bëggee soppi naka laa koy soppee te su ma koy soppi fan lay jëlee alal ji ak jan jikko laay àndal pour mu soppeeku loolu mooy tëral ñu Mahammed Boun Abdallah Dionne lu tax ma ni la candidat de la rupture la mais rupture intelligente boo xam ne nii du bàyyi kenn mu dem maanaam du bàyyi kenn mu des gannaaw waxam Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na amul benn xarma yàlla ak ndaw ñi taxaw ndaw yi jonkan ni dañu bëgg a jot ci réew mi parce que wóorootuñu seen mag amul benn xar ma yàlla ak ñoom lim leen di wax rek lenn la mooy man Mahammed Boun Abdallah Dionne am na fu ma yàlla jaarale xam naa nu état mooy lan xam naa nu ñu yore réew dama bëgg li ma xam a kës néew tubaab tudde ko expérience loolu su ma àndeek ndaw ñi ma baaxe leen ko ndaw ñi ñoom itam baaxe ma lan lañ bëgg te mu méngook seen jamono comme saa ñu ànd mbagg ku nekk teg sa mbagg ci sa mbagg morom parce que loolu la sunu hymne national woote épaule contre épaule waxul jamaay jomaay wu jiitul Abdoul Aziz topp sa gannaaw épaule contre épaule la wax jomaay boo taxawee Abdoul Aziz day ñuul teg teg mbaggam ci sa mbagg ngeen dem Mahammed Boun Abdallah Dionne wax ni ci biir ànd boobu ñeenti réforme mënul ñàkk moom la Albert wax sànq ni il faut que ñu def ay réformes institutionnelles première réforme bi nga xam ne ni moom la Mahammed Boun Abdallah Dionne di proposer réew mi mooy réforme de l'état sunu état bi toogaayam fokk ñu seetaan ko pour rawatina justice di tëddee njaaxaanaay muy benn. réforme institutionnelle. muy réforme institutionnelle. oui ñaareel bi mooy réforme euh, éducative. waay waay mënoo ni réew di nga ko jëmale kanam da nga soppi xar kanam nga te njàngaleem xale yi bàyyiwoo ko xel muy réforme éducative mën nañ ci suux bu bu ñu continuer ci débat bi.